وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام في ساعة راديو قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنتم في برنامج من حاج الآبدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى عبد في الفني du mbay caam ayadda allah wa nas mbokk auditeurs rajo xasid online dellu si nañ weneen yoon ci seen émission bii di min xaajul abidin ilal janna te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbay Saam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal daaram ji ñuy tuddee Ihya Ulumuddin ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Musa alayhi salaam xam ni tey mooy suñ édition bi jëkk ci deux mille vingt yàlla may ba ñu fekke vingt et te weesu ko incha allah mu mel ni jamono yi weesu waxtaane won nañ li ñuy tudde xaqul waalidi alal waladi mooy xaq yi nga xam ni doom moo ko ameel ay waajur loolu lañ waxtaane woon dëgg la jeexutoon sax waaye ci diggante bi am na yeneen ni mawduaat yu fi jaar waaye suñ tomb tey daal dañoo bëgg a waxtaane xaqul waladi alal waalidi xaq yi nga xam ne nag waajur moo ko ameel doom ndax su mawdu bale dañoo waxtaanoon àq yi doom ameel waajur waaye tey dañoo bëgg a waxtaane àq yi nga xam ni waajur moo ko ameel doom ak yooyu la ci jëkk mooy li ñuy tuddee ak tarbiya éducation moo ci jëkk bil aqli wal jismi éducation ci xel ak éducation ci yaram lu ko waral doomu aadama da sun borom rabbi situ wa jàlla teral teraanga joo xam ni am na fu dale waye amul fu mu yam borom rabbi situ wa jàlla neena wala khad karamna bani adama wa amal fil barri wal bahri wa rasax naahum min atayibaat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila ñun yàlla di rabbi situ wa jàlla ño bind doom adama bind yeneeni bindeef yudul dul doom aadama waaye terewul ñi ni ci roseet doomu aadama moom teral ko dayab tiraanga mu ni tiraanga ja bokk na ci mu xàmmee njariñ xàmmee lor ñu may ko kàttan gu mën a defare jumtukaay bu muy jaare ci kaw jéeri ji di doxe ay soxlaam te du ci ànd ak benn fatiguement ñu may ko kattan mu mën a wut daaba ju muy teg ci kawam ndox di dox ay yitteem ñu seet ye gën a teey ñu wërsëgal ko ko moom doomu aadama ma tànn ko teg ko ci kaw bindeef yu bari yoo xam ne man yàlla maa leen bind moom leen ni ma ko moome moom doomu aadama waaye ma jël doomu aadama teg ci seen kaw bu la neexee lépp lu dagan te nga aajo woo ko nga am sañ-sañ rek rey ko teg ko ci taal di ko lakk te xam ngeen ni lak yalla rek ko yeyo bu ñoree nga lek bu fekke ni sax jaar nga ko ci anam nga lislaam bëgg tuyaaba la yalla di bindal waye du la bindal bàkkaar faf tawatina doom adam nak teraanga nga ko yalla teral ba képp ko xam ne sax rey nga ko ci anam goo ko wër te rey gu lislaam nanguwut suñ borom neena na yaa ngi mel ni ko rey amatu naas bi yëpp addina bi yëpp ndax ngay doom aadama rek doomu aadama moomu suñ borom teral jaarale ko ci ay loxo loxo yooyu mooy ñan mooy waajur yi borom gàll ci seenu loos ni yéen laa terale njaboot na ngeen ma leen yaral loola taxoon Abdullah ibnu Abbas ñi nga xam ne mooy xibrul umma di fooyew xeet wi mas naa laaj ki yàlla yónni muy Mustafa alayhi salaam mi yàlla yónni ci jaam ñi ni ko yow ki yàlla yónni ci jàmm ñi ma xaqul waladi alal walidi fa xaala alayhi salaatu an yaxsin ismuhu wa yaxsin adabuhu naa baas nee na dama ne gën gi mbindee sallallahu alayhi wa sallam waaw maa ngi lay laaj lan mooy xaq yi nga xam ni waajur amel na ko doom nee na yonent bi alayhi wa sallam tontu ma bokk na ci àq yi nga xam ni waajur amal na ko doom mooy na ko wutal turu rafet turu rafet moo ci jiitu fekk na sax ñu ngi ko war a jëkk a tànnal mooy ndey tànnal ko turu rafet bañ koo tuddee turi yaama neex yi rek benn sa xarit boo xam ni amal na la njariñ waaye aw turam turu ceddo la ndax moom la ko ay baayam woon a ah, yow it nga daal di top ci tur woowa boobaa ameel nga doom xaq yoo xam ni ëllëg dana la ko laaj ci kanamu yàlla sidina omar radiallahu taala mu nekkee amirul muminin fa am benn waajur woo xam ni doomam da koo lànkal lu mu ko sant mu lank lu mu ko digal mu lànk booba xam ngeen ni ci amirul muminin ngay dem kalaame ko nga xamee ni bayam dem na ci amirul muminin du omar ibnu khattab radiallahu anhu ni ko yow amirul muminin dama am sama dom. di ko dundal te lu ma ko sant mu lank nanguma defal dara du fas morom ja waxe loolu omar radiallahu anhu daal di kombuke doom ji doom ji ñëwee sayna omar ni ko yow lan moo tax sa baay lum la digal nga lank lum la sant nga lank alquran nee na wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu bil walidayni ihsanan ni ngeen def njëkk ginnaaw bu ngeen joxee yàlla xaqam bu noppi ni ngeen def njëkk bu ngeen man jëme ci seen ñaari waajur lan moo sax nga lànk bañ def njëkk jëme ci sa ñaari waajur nee ñu xale bi ni wàññet ni waaw Omar ndax sama waajur wii mayit amee lu ma ay xaq Omar ni ah kay bañ a amee la xaq mu ne ko limal ma yenn ci àq yi ma dégg Omar ni ko ah ba ci njëkk de mooy amel na la xaq yi wutal la tur wu baax tur wu rafet mu ne ko kiimtaana ngoog xaq jooju ma amel joxuma ci daa mu xam nga num ma tuddee mu ni déedéet ko mi ma tuddee gunóor boobu nga xam ni mooy dërëng dem àlli fas yi ak dem àlli nag yi gunóor boobu la ma sama baay tuddee ndax sama baay amee lu ma xaq mu ne ah na la xaq yi wutal la ndey lay ju ñu yar ñu tek tankam ci alal wa sunna mu ko benen ngok yi nga sama bay bam mu ba soxla tak soxna da dem fekk jam jamaat ya mu tak ca ca ba jam bi am nak la waxuma jam yi senegal yi nga xani bi bi ñuy fu l'islam am ñu xare ba japp ñooñu rek moy jam waye li amon senegal lol du ay jam lol du ay jam Omar daal ni bay bi yow mi rek lañ wara fuddu sa ndig ndax yow yaa jëkk jalgati xaqi sa doom ba nupp bëgg sa doom jox la sa xaq ca kat alquran dani al jasaawul ihsaan ila al ihsaan danañ ko wax ca kanam kon nag doom ji ameel nga ko xaqi wutal ko tur bu baax wa yaxsin adabahu léegi nag ba ci des mooy nga rafetal éducation nga rafetal éducation waxtaan wi li tax ñu delloo si ko lu tax ñu jaaraat ci lu tax ñu wax ko mooy bu fekkee ni mas nañ ko waxtaana it moo di dañoo gis fi jamono toll ci ay droit ñu andil enfant droit de l'enfant ak droit de la femme ba kenn amatul sañ-sañu yar sa njaboot kenn amatul sañ-sañ ba loolu danañ ko wax ci biir waxtaanu insha allah cheikh ahmadou bamba sunu sëriñ ba radiallahu taala anhu moom de nee na woon laa yamadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad alayhi salatu wasalaam ni man sañ tuubaa ma dikki àddina li ma gën a sant ci sama borom li ma gën a sant sama borom ñu ne ko looloy lan mu xanaa tudde gi ma tudde yant yàlla Muhammad rek loolu laa gën a sant ci sama borom ci mboolem xeeti cant yëpp li ma ci gën a sant yàlla mooy tudde gi ñu ma tudde Muhammad ibn Abdullah alayhi salaatu wasalaam laa ya'mudu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad doom yooyu nga jur leen yore masuliye bi responsabilité bi ci sa loos la ko yàlla teg moo xam ñi ngi fi yow moo xam dañoo nekk ci yeneeni loxo bu fekkee dañoo nekk ci yeneeni loxo nit yi nit koo xam ni dafa tàggoog way juri xale yi kooka dem yóbbaale leen lu ci nekk am na xaq doom joojee nekk ca ndeyam ak dina ci say loxo li ci nekk rek amel nga ko xaq moo tax gën gi mi def sallallahu alayhi wa sallam ni taqullaha wax juloo bayna awlaadikum ngeen ragal seen borom te it nag ngeen maanu ci diggante seen doom yi seen njaboot gi amuloo sañ-sañu beral loxo kee defal ko loo defulul kële xëy na waxtaan indi ko incha allah waajur mën nañu wax ne daa bokk ci ay pakkam bari dem safara mooy doom alquran nee na ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran yéen ñu wax ni gëm ngeen yàlla bu ngeen bëggee mucc ci safara mi ngeen di def mooy da ngeen di fexe fegul seen bopp safara fegul ko seenu njaboot ndax njaboot gi mën nañoo dem safara ëllëg yóbbaale la kon nag boo woo sa bopp rek ci safara te mooy fexe ba nekk ci li yàlla sant waaye sa njaboot sa yoon nekku ca na la war ni boo muccee it muccagoo boo muccee muccagoo kat ndax bis a ngi ñëw njaboot gi yaa ñoom da ngeen bokk teew ci kanamu yàlla bu fekkente ni fekkul nga def la nga war na def ci ñoom ah, ay di buri sara masuliya boobu la yonent bi sallallahu alayhi a sallam junj ca addis ba ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi képp kenn ci yéen ak sàmm la responsable la te la nga xam ne nii moom lañ teg ci loxoom mu war koo responsable kenn ku ne ci yéen responsable la ca la mu yore ci loxoom njaboot gi yéen ñaari waajur yi yéenay masuliya bi njaboot gi baay bi nag moo ci ëpp responsabilité ndax moom mooy responsable lu ndey di responsable lu doom ñaar yëpp léegi nag bu boobaa bu fekkente ni jaaruloo fa war a jaar ak ñoom masuliye boobu ëllëg ci kanamu yàlla daa la ko laaj gis nañu bi alquran di misaal ni yowmal xiyaam aw gaay ngi nii yàlla seet seen mbir mépp mu jub seeni julli baax na seeni woor baax na seeni natt asaka baax na seeni dem màkka baax na seenu jaamu yàlla baax na yàlla ni leen acca ishaboo ilal janna yoonu aja ngoog dem leen dugg fekk booba am nañ njaboot njaboot gi yàlla seet seeni jëf dara baaxut seen démb baaxut seen tay baaxut seen gannaaw ëllëg baaxut waajur yen ya ni ñokket waaxu jëm àjjana doom yi ni der yuuxu ah yow sun borom ana sa maanu gi sun borom ni lu xew ñu ni ñun ñoo ngi nii nga àtte nu bëgg noo yóbbu safara te suñ ñaari waajur yee de nga bëgg a yóbbu àjjana lu nu dal ñoo nu ko yóbbee mal éducation buñ defoon ci ñun moo tax ñu daan jëf-jëfe waa safara a tarbiyatu suu wala suu tarbiya suu tarbiya bi ñu defoon ci ñun moo tax ñoo ngi nii jëm safara ñoom nag tey ña nga ne a dem àjjana sun borom ni déedéet loolu maandu fekkiwu ko loolu maandu fekkiwu ko daan ni malaaka yi waqifuhum inna um masuluuna delloo si leen ma ñaari waajur yi ma am lu ma leen laaj nga war a dellu si ci kanamu yàlla war a rendre compte njaboot googu ma la joxoon moo tax suñu borom rabbi si tuuti jàll ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wamruh ahlaka bi salaat wastabir alayha yow sallallahu alayhi wa sallam na nga digal sa njaboot ci ak njub na nga leen dugal digal topp yàlla na nga leen yar na nga leen jaar alkitaab wa sunna bañ man di taxawe julli juróom waaye nag wastabir alayha na nga muñ la nekk ci aw tiis ak naqar ci lu baax ci taxawu sa njaboot ndax njaboot boo ko dee taxawu nam ware bu ci ragal dem kaso ñi nga xamee ni xew na léegi boo ne sa njaboot sa bët yi suufa ngi ci yoon yóbbule ci kaso yoon yóbbule kaso rawatina nag bu dee sax ci bitim réew léegi loolu xew bitim réew law na di rogalaat ba ci suñu réew mi ñuy wax Sénégal nga xam ni léegi professeur bi naka noonu maître bi jàngalekat bi enseignant bi sañatul ni elaw bi muy jàngal sa bët bi suufa ngi ci loola ñu yóbbu nag ci léegi sax xale yi nangootu ñoo jàng xamul dara xale bu nekk da ngay nekk sa balaxal madda bu dee xale bu jigéen bi day nekk ci balaxal maddaam ba ex sama jot léegi maître bi ko doon jàngal jàngalekat bi enseignant bi ni ko léegi boo bëggee ma may la not bi baax te kat moom bëgg naa kamu file ay waajuram pour wan leen ni doon naa jàng samay not baax na te fekk boole ne saa bu xëyee ni mi ngi jàngi boo moytuwul ma nga ca bistro ba boo moytuwul ma nga ca boo moytuwul ma nga ca wala ma nga ca appartement ya léegi nag bu examen jotee léegi fa muy jaar ak médecin bi fa muy jaar ak mm, enseignant bi mooy enseignant bi danaan ko léegi daal boo bëggee ma jox la not yu baax danga may jox sa bopp rek yoon mi nga xam ne mooy yoonu tubaab tere la wala yoonu droit yoonu loi mi la tere woon góor léegi lam la yóbbu mooy yées mooy fexe na ba sa doom njaaloo te amaana bu fekkonte ni bàyyee nañ ko enseignant bi mu sañ ko jubbanti sañ ko ni sa bët bi suufa ngi ci kon mën naa am dana jàng ba am not yu baax ba du joxe boppam ngir not yu baax bu dee xalal bu góor ba yóbbu na ko ci ngóor jigéen moom tamit waliyaasu billah yooyu yëpp nag di yoo xam ni di dikk te mi ngi ñëw bu fekkente ni ñi war a wax waxuñu ci ci suñ kaw la jëm si mi ngi ñëw ma ni kon xalel bi faaw nga yar ko waaye da ngay nangoo jël sa responsabilité moo tax suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayha na nga nangoo muñ les conséquences yi nekk ci yar conséquences yi nekk ndax bu fekkente ni da ngay ragal kasub addina kasub àllaaxira lay xaar te kasub àllaaxira mooy sawara wudul tàkk woo xam ne doo xam lu koy fay kaso bu àddina nag moom ñaar doo nga fa ne aw tàngoor ak i teeñ benn nga dem dugg kaso nekk fa ca tàngoor ak i teeñ ci la tëjoon dee ñu gracier la nga génn wala yow nga dee ñu suuli la bàq ya ñaar yooyu rek mën a am boo liggéeyoo mal xam nga mucc léegi nag yaay tànn yaay tànn wastabir alayha léegi yaay tànn dañu wax ni doom aadama yi ulamaawu tasawuf ñoo koy faral di wax doomu aadama yi bi leen suñu bindee doomu aadama bu nekk dafa am juróom-benn téeméeri sidit ak juróom-benn fukk ñenn ñi ni ñetti téeméer ak fukk ak ñett wala kulli xaal li ma intéressé mooy doomu aadama siditam yi nekk ci biir yaramam da ci am ñaari sidit yoo xam ni jii dafa weex tàll jii ñuul kukk sidit gu weex gi moo tax ñu bëgg doomu aadama bi ñu yar ko boo ko yaree di ko tarbiya di ko tarxiya di ko tasfiya day dem ba sidit gu ñuul gële nga xam ne moo ko doon xëcc diko jëme ci safaan diko jëme ci texee di sidit gu ñuul gogu day dem ba dee bu demee ba dee sidib gu weex gi rek mooy dund sidib gu weex gogu nag su fekkee ni mi ngi dund bu xas bu ñuul gi xasee dee léegi moom dootu xam lu bon dootu fekke fu ñuy defee lu bon dootu wax lu bon dootu jëm lu bon ndax lan sidib gi nga xam ne moo ko daan xëcc di ko jëme ci mbon sidib gogu dee na bu fekkee ni ci sunu daara yi nga xam ni da ngay yor xale bi di ko yar noppeegoo ci moom ay waajuram ñëw ni ko pag ñett nga xam ni yar nga ko rek ba sidit gu ñuul gi di nelaw ba sidit gu ñuul gi di nelaw ay waajuram ñëw ni ko panget yóbbu su ko defee mu jaar ci mbedd mu jaaree ci mbedd mi ci koñ bi gis gone dimul woon daara nekk ci ab safaan mu gendiku leen xool leen ñu wàll ko seen lu bon la mel ni moom mësta jaar ci daara lu tax siditam gu ñuul gi daa deewagul woon daa fekk rek mu doon nelaw kasaalika noonu nga koy gisee ci benn xaleel boo xam ne kenn yëru ko waaye siditam gu weex ji mi ngi xor-xoral mu dal di romb ay xale yo xamni ni ngi ci lu baax di xëy ci lu baax di gont ci lu baax mu gendiku leen benn gendiku rek ñu dal di koy xëcc ci lu baax lolé yóbbaale ko ba melni ni jaar fu bon alquran di ko ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ak wa adaynaahu najdayni ñaari saar yeb sun borom neena fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nit ku ni defal nako ñaari sidit siditu ragal yàlla bam mu jóg jëm ci lu baax ak siditu mooy yàlla ba saa bu jógee jëm ci lu bon mu ni doomu aadama boo gis defal naa ko ñaari sidit yooyu loolu moo tax ñu yoonal li ñu tuddee ak tarbiya ngir sidit ñuul googu ba nga xamante ni gu weex gi rek mooy dund ngir mu mën ko orienté jëmee ko ci yoon wee moo tax mu ni te weneen saar wa waa day naahu najji day ni man yàlla maa xotti nit ñaari yoon yoonu texe ak yoonu texe di ñu noddu tàkkusaan de allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah muhammadu rasul ñu gis ni kon sëñ Tuubaa ahamiya bi mu jox ak tarbiya boo gisee mu daan wax naan al adabul mardiya teggin yu ñu gërëm al adabul mardiya dafa am benn bis moom sëñ Tuuba radiyallahu anhu suñu sëriñ bu mag boobu le yàlla nañ ko yàlla fayal mu ne dafa toog ba yàgg murit yi daje dal di waxtaan ci seen biir ñu ñun day aajo woon nañ téere boo xam ne day wax ci wàllu éducation aajo woon nañ ko de léegi nag kon nañ délégué ku ñu demal ca sëñ Touba fekkal ñu ko ca Ceyeen booba sëñ Touba ngi Ceyeen mu waxal nu ko ni nañu bindal téere buy wax ci éducation ñu délégué ku ñu wax sëñ Moor Kuna mbakke radiyallahu anhu ñu délégué sëñ Moor mu dem ni sëñ Touba radiyallahu taala anhuma murid yi day ñoom a yónni nee nañ dañoo bëgg nga bindal leen téere buy wax ci wàllu éducation ak tarbiyatu al mardiya wala bok al adabu al mardiya seigne touba neena bagn mako waxe fa saasa dama ni beurep ndax ahamiyya bi nga xamni yar mom la am neena waju mako fa saasa la ni beurep rek jëm ca moy ti dem bobu mu tudde na naaju xadaay la aj ta kuñ wax Muhammad dal haj bindon ko wessar ko seigne touba wayat ko كلا بخني غطلبوا الناس من حوا تحدبا ليتحدبوا وساك وجبا إس كل من بخيره رامة با فإنه يأرم فوسا وانتفاع وهو في الدارين غير كنس وغير محتسبه سوحسي لأنه منور الجنان منور الجنان كما يقرب إلى الجنان ويوجب المرأة لدى الجيران كما يبحيد عن النيران فقمت مسرعا إلى الجواب nee na ma daal di ñokkat fas saasa rek jóg jëm ca loola mu ni tali bii day délégué nañu ma benn délégation nee nañu naa leen bindal téere bi wax ci éducation mu ni man sëñ Touba fa saasa rek ma ni ñokkat jóg muy ndax damaa gis ni man sëñ Touba képp koo xam ne nee yaa ngi wut a am fajug aajo addina ak àllaaxira te jaaroo ko ci yoonu tegin sëñ Touba nee doo ko mos a am képp kuy wuta am pajuk aajo adina ak alaxira te sëñ tubaa nee na jaaroo ko ci teggin nee na doo ko mas am muy ndax ay teggin mooy ngën gi trésor mooy ngën gi compte banque mooy ngën gi texe yowmal xiyaam mun yowmal xiyaam gaañu tedd ñëpp ñëpp la leen yàlla di bàkke la leen yàlla di nawe mooy ay teggin muy ndax ay teggin day leeral xolub boroom diko ñot di jëme aljana sa bu xey di gënd di jege sun borom rabbi situ jall mu ñu ay teggin day wax day waral nit ñu bax ñi dila tagg say dekkando dila tagg mu ñu ay teggin bu ko nit ki amé al adabul mardiya neena day tax sa bu xey di gëna sori safara mu ñu ahamé bi nga xamni nak ay teggin am na ko mooy importance bi mu am tax na biñ ma ko waxee mayit tëddatuma nelaw lu ñu ni daa leen bindal benn téere bi wax ci éducation téere boobu nga xam ni mooy wax ci wàllu éducation ci wàllu yar nga xam ni doomu aadama bi kon mënta ñàkk mukk ngir ñu yar ko mënta yonent yi alayhimu salaam suñ borom daf leen a yónni ngir ñu nekk ay enseignement ay enseignant yoo xam ne nii dañuy boole enseigner ak éduquer léegi nag suñu jamono bii tubaab yi dañoo bëgg a gëmloo ni na suñ tubaab yi ñuul yi fii ci réew mi ñoom it wàll nañ leen ko mooy dañ ñoo bëgg a gëmloo ni léegi nañ leen di enseigner rek waaye moom yar bu ci bokk éducation bu mu ci bokk léegi looloo am léegi loolu mooy réew mu tas mooy addina bu tas foo dem fekk ko muy takk ka ko taal borom xam-xam bu kenn yërut la réew moo dem fekk muy tàkk de borom xam bu kenn yërut moo ko taal borom xam-xam bu kenn yërut moo taal mooma réew ah loolu la ñu bëgg a indil waaw waaw ndax waykat ba nee na wa ay su kaana ahlu xayri mu ni wa ay su kaana ahlul fa unaaka xayrun waaye wa ay su kaana ahlu sarri fa unaaka sarrun nee na boo dem fekk fa gaañu baax ñu yar éduqué leen mu ne na la wóor ni milieu booba bi abi maanaam mboolem milieu bi lépp aw yiw rek a fay balle lu baax rek a fay balle lu baax rek a fay jóge mu ne waaye wa ay sukaana ahlu sarri foo naa ko sarru milieu boo dem fekk ñoo xam ne mal éducation rek ñoo fa dëkkee ñu mal éduqué rek ñoo ko dëkkee a suu tarbiya ay nit ay nit ñu kenn yarul mu ne foofa aw ay doo nga fa nekk ak musiba ak balaa ak musiba ak moo tax xalel bi kon faaw nga di ko orienté muy bañ di fréquenté ñoo xam ni nii ñoom dañoo moom seen bakkan seen yëru leen moo xam da ngaa yor say doom ñuy jàngi war nga leen di suivre di leen xool ba nga xamante ni duñ jaxasoog ñoo xam ni kenn defaragu leen sayidina usman radiallahu taala anhu nee na muxaalatatu saalihin waajibun waaye bihim farida sayidina usman nee na ah kay mënta ñàkk moos nee na nit ku ne war ngaa fexe ñi ñu tuddee xiyaarul insaan mooy nit ñi nga xam ne ñu tànn lañ nit ñu baax lañ ngay jaxasoog moom mu ne loolu waajib la de daa war jaxasoog gaa ñu baax ñi nee loolu daa war de fexe ba xam gaa ñu baax ñi di jaxasoog ñoom ndax sëñ Musaa Ka na walliw day wàlle sang day sange sëñ Musaa Ka nee na walliw day wàlle sang day sange kon nag mu xaalatatu saalihin waajiba jaxasoog gaa ñu baax ñi farata la wa yaqtadi bihim mu ne warugar la waaye wa yaqtadi bihim farida roy leen nag moom farata la roy gaa ñu baax ñi farata la maa ngi leen di laaj ana kan ci yéen moo toog ba yàgg mu gis doomam mu dogu rek ni fas naa yéene mel ni sëñ daaru Assane Ndiaye maa ngi leen di laaj kan ci yéen moo gis doomam joo xam ni dogu na ni fas naa yéene mel ni Cheikh Ibrahima Fall fasna yene melni Cheikh isa Dieng fasna yene melni mam ni maam Fatim Mbacke radiyallahu taala anhum jamian kan ci la ay domam xalaat loolu moo day ñokul ni amna ci yéen ño xamni ni nii na leni sa dom ji bëggatu doon kenn kudul musa yusu ndur nama yusu ndur bal Ndour baal bëggatu doon kenn kudul dul gewel Géwal doon kenn kudul Kine Lam kenn kudul musa ci on sek nañuma ma kenn ku ne am nga ci njaboot ñoo xam ni buñ sañoon ñooña la doon xëy na ñooña la ñuy doon ah suñ tubaade nee na woon isa ahjabat ka xisaalu imrihin fa kunhu yakun minka maa yujibuka waaw nee na suñ tubaa nee na bu fekkente ni Elas juuf dalaa yiim ci mën a football mu ah, mu ni defal ni Elas Diouf rek da ngay xëy li mel ni moom mun waaye bu fekkente ni maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke dalaa yéem ci dëggu yéem la ci njàmbaar yéem la ci aw fit sëñ Tuubaa nee na jaaral fa Thierno jaaroon rek da ngay xëy rek doonoom Thierno bu fekkee ni Cheikh Issa Diène dalaa yéem ci ak wilaaya dalaa yéem ci xam yàlla mu ne jaaral fa mu jaaroon rek da ngay xëy rek doonoom Issa bu fekkee ni Cheikh Darou Assane Ndiaye dalaa yim ci ak ragal yàlla ak bëgg yàlla mu ne mu ne jaaral fa jaaroon bu fekkee ni Cheikh Ibrahima Fall dalaa yim ci bëgg sëñ Touba mu ne jaaral fa jaaroon rek isa ahjabat ka xisaalu imrihim fa fa fa kunhu yakun minka maa yuhjibuka radiyallahu taala anhu isa ahjabat ka xisaalu imrihim fa kun hu yakun minka maa yuhjibuka ne da ngay xëy rek melni mom moom sëñ Touba ko wax da ngay xëy rek melni mom da ngay xëy rek melni mom kon nag anil mar i la tas al wasal an xarinihi ndax fa kullu xarinin bil mu xaarini yaqti bi saayir bi nee na ascam bul laaj nee na boo séene benn waay muy dem mu ni bul laaj fexee la xam ña muy àndal rek fexe gis nga boo gisee gone fexee la xam ñan ñoo di ay koppeem dëgg dëgg dëgg boo bëggee xam nu gone gi mel ndax gone gi ni muy mel ci biti mën na la koo nëbb bu nekkee ci biir kër gi waaye yow gëstul ba xam kan mooy koppeewu xale bi rek fexee la xam xale bi ñi muy àndal rek léegi nga xam sa doom mooy kan léegi nga xam sa doom mooy kan waaye fi mu ne nii boo dee yar sa njaboot daanaka nit ñi ab dof lañ lay teg wala yàlla xam na ko man fii ci sama daara ji nii sama dong yi duñ génn yeneen i dong dañuy bëgg génn jóge ci biti ñëw ci biir daara ji waaye dama leen koy tere dama wax déedéet déedéet du ngeen jaxasoo ñoom ndax bokk bokk lewuñ nu ñuy doxale du ngeen ak ñoom anil mar'i la tasal wasal an kharimihi rek ndax fa kullu xarinin bil mukharin yaqtadi sëñ tuba ko wax kenn ku ne ka ngay àndal bo de ànd ak ku ñak diine da ngay xëy rek sa diine dem bo de ànd ak ku ñak kilifa da ngay xëy rek ñak kilifa da ngay xëy rek ñak kilifa bu ko defé and ndoy ci bari ay intérêt personnel rek ñokay lal intrapersonnel ba ci mag ñi sax léegi ba ci mag ñi sax léegi daanaka àndandoo yi ñuy wut ànduñu ngir yàlla waaye dañuy ànd ngir yàlla ba ci mag yi sax léegi waxatuma gone yi waaye mag ñi sax léegi ñu ci gën a bari àndatuñoo nit ngir yàlla dañuy ànd ak moom ngir yàlla benn ay businessman ngeen yéen ñaar ñëpp nga xam ne bis business rek moo leen boole business rek leen boole bis boo demoon ba bàyyi business rek allez ku ni dem ku ni dem am na ñoo xam ne nii bokk nekk ca réew ma nga leen boole bokk nekk ca réew ma rek waaye bu ngeen ñibbisi woon Sénégal wala kenn ki ñibbisi communication bi daal di dagg bu kenn ki ñibbisi woon toog rek communication bi dagg lu leen boole woon mooy bokk nekk ca réew ma si Ahmadou Kabir Mbaye de nee na radiallahu taala anhu لا تتخذ أقيا من صديقي لأجل دفع سدة وضيق يامون كبير نانا أي واجلي bul wut ay xariti personnel interpersonnel bul wut ay xariti interpersonnel ñoo bokk nekk ci réew mi féete nga ma fii naa la féete fii kon ay copain lañ loolu du xarit de loolu du xarit maam seex nee na xarit boo xam ne wutoo ko lu dul ngir boo amee problème rek mu résoudre sa problème moo la booleeg moom bis bu ko noppee suudu rek nga teqali ko ak moom mu ne ak cam loolu du xarit loolu du xarit kon xarit da ngeen di ànd ngir yàlla boo gisee sëñ Tuuba radiyallahu anhu di wax ci masalikul jinaan ni nit bu bëggee yegg ci yàlla ñett dong ko mën a yeggale ci yàlla amutum ñeenteel ñett rek ba ci dëkk mooy sëriñ bu mat sëriñ sëriñ bu mat sëriñ boo demee ba sëriñ bu mat sëriñ gisoo ko wala mën leen mënatoo leen a xàmme lu fa sës sëñ tubaa nee na kon bàyyi boo nga wuti xarit bu sincère boo xam ne nii bu lay wax dëgg ak bàyyi la la yemale fu dëgg jote mu samañ la ko di la wax say sikk ngir nga mën koo ba di la wax say sikk ngir nga mën koo moy ci ndiku bu yàggee leen nga baax de boo nangulee xarit boobu lee nga baax mu ne bu fekkee ne ñaar yi nag amuñu fi dernière solution mooy setal say non nga dem dëkk ci seen biir di jaxasoog ñoom setal say non ngay jaxasoog ñoom gis nga jaxasoo gi ngay jaxasoog say non xam nga lu mu lay jural yegg ci yàlla ndax da nga moytindiku def ab safaan ñu di ko dégg ba di la ci reetaan mbaa ñu di ko wili pande noonu ngay dawe tiif yooyu léegi kay ku bàyyi tiif yegg ci yàlla nit ñi dara doxul dig seen diggan seen seen borom lu dul aw tiif rek ku bàyyi tiif rek yegg ci yàlla nit ñi dara doxul seen digg ak seen borom lu dul aw ñaawteef ku bàyyi ñaawteef yegg ci yàlla mhm. sëñ Tuubaa ni ku bëgg a yegg ci yàlla ñett yii moo mën a yeggale nit ci yàlla bu la yàlla dimbalee am sëriñ bu ma sëriñ baax na soo ko amul bay bu wut xarit bu sincère ba xam li ci sa poos bii ak doñ suuf yi muy joggi di jàll la yemale mu sawiyan dinaara ay ni bil madar mhm. mu wóor la ni waa ji moom dëgg rek moom fu ko dëgg fekk mu wax ko ak lum ko mën a coûter yoonam nekku ci baye boo téyeel sa alal bul ko ko joxati waaye bu dëgg jotee rek mu wax ko mhm. am na ñoo xam ne nii buñ la xam ci dëggu seen alal diñ la daan jox dañ koy téye ndax yaa ngi menacé seen intérêt buñ daan ñëw ci yow dootuñu ñëw suñ tubaani waaye day bu mu la tax a bàyyi dëgg de fekkee bëgg nga yàlla àndal ak yalla rek sun borom neena ci alquran ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa sadiqin ay yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen yalla te seet nit ñu dëgguñu ngeen and ak ñoom seet nit ñu dëgguñu ngeen and ak ñoom Cheikh mhm. Bamba nee won. woon seet téereem boobu nga xam ne moom la bind ngir éducation nee na wa kun ma an naasi jamian daraka kama tuhibbu an yakuna maaka radiallahu anhu nee na dama bëgg nga àndeek nit ñi ni nga bëggee nit ñi àndekook yow mooy bëgg nga kenn kenn kenn du la wor yow it wor kenn danga bëgg kenn du la wor yow it wor kenn Mhm. li nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi def ko nit kon bokk na ci àq yi xam ni waajur ameel na ko doom mooy di ko yar di ko orienté benn xakima ngi nii di nitu yàlla ñu naan ko Seydina Luqmaan ñu nee ñu yonant la ñii ni di yonant Luqmaan xakim ba moom day daana orienté doomam mu ne ko yaa bunay aqimi salaat وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أذابك إن ذلك من أظم الأمور سورة لقمان سيدنا لقمان داني دون جي أقنا واجر ونك أمل ننجبوت حق من ليس ما حق سما ديجن تجاو دينا فخي مواتيم موي ما اندي لي ديغل حق مي صلات فو مانا نيك بو جولي جوتي ليغا جابون بايكو تي ديم جولي جي wa amur bil ma'ruf ma ngi lay digal fo tollu na ngay wax njekk di def njekk bul genn di tok taru jambur bul sacc portable jambur bul bul bul bul wa amur bil ma'ruf del wax njekk te diko def legi nak wanha anil munkar fo gis lu bon nang ko daw bu ko jege bu ko laal mu ne ko waaye nag wastabir allama azabak mbir moomu de yombut kon nag loola ci mën a dal bay boo muñ ko moytu yàlla tere mu ni yombut de waaye loola ci mën a dal nag bay boo muñ ko moytu yàlla tere dana tax a xiif te doo gis loo lekk ndax moytu yàlla tere rek mu wóor la ni alali jàmbur a ngi nii mën nga ko fob te borom du ko yëg mën nga ko fob te borom du ko yëg waaye nga ni yàlla mi nga xam ne mooy aalimul xëy bi wa sahaada dara ump ko kon nag duma ko laal te fekk yaa ngi xiif bay wastabir àllaa ma asaabak mbir moomu day loola ca mën a dal nanga ko muñ mu ni ko lu tax mu ni ko inna zalika min asmil umur mbir moomu daa bokk ci gën a jafe fu la julli fekk nga bàyyi loolu def dum julli ji foo toll di digle njekk di tere ab safaan foo toll di def njekk di bàyyi safaan mu ne mu ni ko yombut de wastabir àllaa ma asaabak loola ca mën a dal nanga ko muñ loolu mhm. a ca mën a dal rek nanga ko muñ defe naa nettali woon naa leen bokk yi fi ñëwoon indi woon fi oto bu rafet rafet rafet ñi ma bu a neexee sax sa jumaa ji ngay tabax feeg juróom benn weer ñu yeggaleel la ko waaye nag à une condition dañoo bëgg nga bokk ci association bi suñu association bi nag ku ci bokk moom ah sart yi mooy looy mën a wax bul tudd mag mu baax mukk moom bul jaar ci tuuba man leen man day siif bay lekk suuf moma gënal di waxtu du tuddu señ tuwa man siif bay lekk suuf la wax de moma gënal di waxtu du tuddu señ tuwa man kon nak wastabir allaama asaaba ko lu ci mën dal rek muñ ko motax euh, bi fi gaay ay gaay di fen seen fen yu reuy yooyu naan diw sangam ci turu diw sangam lay wut alal man alal nim may yombe moko beggone ni ko gaa yi bëggee fañ koy jaar maa leen ko gën a xam gën leen ko jekk ba noppi nag yàlla xamal ma ci lu leen xamalut kon daa am lu may moytu kon daa may moytu mu ne ko inna zalika min asmil umur mbir mu jafe la mbir mu jafe la bi eh, alxaaji maam Cerno Mbàkke ñëwee fii ayyadallahu wa nasara ñu andé dugg ci juma ji mané ko Sénégal de dañoo baaxoo kuñ seen nga taxawal juma ñu ni ko la financé waye ma ngi lay waatal ci suñ borom ni sama juma ji ma ne ko kenn financé wu lu dul sama ñak wi ak lenn ci talibé sëñ touba yo xani ne mënees leena leen ci baram lenn ñu néew moo tax di dénk doom ji batay mu ni ko wala tusaahir qaddaka linnas maa ngi lay dénk bul def koo dajal defe ni yaa ko supérieur xale yi léegi loolu lañuy ñuy dund xale yi léegi respecté wuñ kenn kenn ku yàlla bind kenn kuñ dajal rek defe na ni yow yaa ya ñoom ñoo la supérieur defe nañ ni ñoo ëpp xam-xam seen bàyyi ak seen ndey defe nañ ñu ñoo gën a yeewu seen ndey ak seen bàyyi ba luñ wax ñu ni maire da ngaa tardé ñu ni paa bi dafa tardé wala tu saxir qadaka rik way yang def ko dajal rek defe ni yaa ko gëna a gën ko nandete ya ko supérieur wala tamsi fil ardi mar'an bul def bo gene ci mbedd mi di dox doxinu ma tay xalal yi da ngay dajeeg ñom ci mbedd bo muytu sa mbag mi sa bi lañ koy door da ngay dox di bonde seen tuba yaangi buñ gisee oto bi ñëw sax duñ jàdd man daanaka xale yi boo leen di xool wallahi doo leen sax xaw a xàmmeeg ay bàyyi ma maanaam lu leen di lor sax day jóg jëm si ci ñoom do doo xam ndax ñoom seen intelligent fan la nekk seen inti wala njaay nee na daw baraw ci ngóora la di daw baraw ci ngóora la seen intelligent sax doo xam fu mu nekk bu dara jógoon war leen rey da leen di rey rek kenn xamut lum doon wala tamsi fi l ardi mar'a inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin faquur sun borom nee na man bëgguma ku ne ci mbedd mi di tiitaru man yàlla bëgguma ku ne ci mbedd mi di tiitaru di wane nii laa toll ak diwoy sama baay ak maa ngi bokk yax sàngam mu ni cëm borom nee na loolu bëgguma ko dem leen ca sóoratu luqmaan ah léegi nag ñu indi lu ñu ay loi yu wax nii kenn amatul sañ-sañu duma sa doom ngir jubbanti nga xam ne inspecteurs yi nga xam ne ñooy inspecté école yi egg nañ ci léegi buñ la fekkee ci école nga yor yar yar ba dañ koy nangu dem def rapport yoon ñëw jàppale yóbbu ci kaso bi xalel bi bu wàccoon midi rek dal di daw dem ci kër ga ak ci jooyam ni wala papaam maître dama bala ñoo lijjanti est ndax dëgg la wala da ko inventé faaw ñu jël mètre bi dugal ci kaso bi ba noppi nag soog a lijjanti est ce bi moo ko dóor wala dóor ko foofu lañ toll. billahi àgg nañ ci kasara léem foofu lañ toll àgg nañ ci kasara de Sénégal ak niñ tardé ci xam-xam nga xam puso sax mënuñu koo liggéey wallahi kanam la jëm kanam la jëm ndéem ba enseignant yi di jàngal seen élèves yi ca bu jëkkoon ndar-ndar yu jëkk yi fi ñu toll woon ci xam-xam te ragal seeni enseignant rek moo leen ko yóbbe woon moo tax ñu àgge noonu ci xam-xam ah léegi ndeem loola sax taxut ñu yegg ca xaaya ba waxumaa nag léegi buñ demee bañ ni kenn amatul droit xale bi ngay jàngal leçon bi nga koy jàngal mokkal na ko mokkalu ko sa yoon nekku ci amatuloo droit ni ko sa bët bi suufa ngi ci foofu lañ jëm ndax topp rek tubaab yi waaye maa ngi leen di laaj mu ndax yàlla lañ war a topp akub yonentam wala ndigalu tubaab yi yow julit bi lay waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ci hadis boo xam ni abdullah ibn amr ibn as moo ko solo radiallahu taala anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na murroo awlaadukum bi salaat wa hum alla wa hum abna asabti sinin wadribuhum alayha wa hum abna asr nee na moom abdullah ibn amr ibn as sallallahu alayhi wa sallam nee bi salaat wa hum abnaa sab'i siniin na ngeen jubbanti seenum njaboot di leen digal bu waxtu julli jotee nga naxanteen moom muy julli diir bi mu amee juróom ñaaraat jëm fukk diggante boobu del naxanteeg moom mu ne waaye gis nga bu xasee am dix fukki at mu ne ah mu ni nag léegi bu nanguwut a julli na ko yar bi dal Mustafa alayhi salaam bi lii la jàngale ah legui da ma bëgg wax ni julli bokkut ak li ñuy tuddé éducation da ma bëgg wax ni julli dal mom la yonent bi wax waye waxut jang ma ngi leen di laaj ndax nit mën naa julli julli gu yàlla nangu te jaaru ci njàng ba al ilmu xablal amal al ilmu xablal amal nit balaa julli julli gu baax bu yàlla mën a xam day fekk mu jaar ci njàng léegi nag njàng moomu bu fekkente ni amuloo sañ-sañu ni ko sa bët bi suufa ngi ci kañ lay mën a xam li nga xam ne nii mooy ay droit am ak ci dawaaram ay droit am ci dawaaram kañ la koy xam kon da ngeen noo bëgg a nax da noo bëgg a nax waaye li rasulullahi sallallahu wax rek mooy dëgg ba ci droit de la femme bii ñuy wax yaxub alquran bu ñuy watt wattaaral ni képp koo xam ne nii am na soxna soxna sa seet seet ñàkk koo déggal na tàmbalee ci waar ko gàddaay ko ñaar yi bu fajul mu ne ah ni na duma na duma ñu ne fii di jéem mapp mappal tubaab yeeg e, xuma ay ay olog lañ xuma islam log naan e, waaye yàllaa ko wax mu ni watt ci alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi mooy sayyidil awalin wal axirin Musta' duma soxnam waye nak ma ngi leen di laaj est ce que soxnam mas nako def lu jar duma ji yalla di wax moy ben benen bi ci des moy est ce que lu yonent bi deful rek wari su ko def te moy sunna de mom farata la ci alquran la ni watt wattaanal bi mom sunna la waye be mom farata la dañuy wat ci alquran karim loolu day tekki ni lu yonent bi deful rek wari su ko def dedet ñak ge def mo gën bu fekke ni solution amna bu fekke ni solution amna waye bu solution amul def ge gën ndax yalla du wax lu gënul ci ñun suñu borom du ñu sant mukk lu gënul ci ñun néew na koo xam ne nii te ba jamono di jamono nee nga sa soxna baal nangam boo ko bayiwul dinaa la duma te fa saa sa bayiwu ko xanaa léegi xanaa léegi ah, moo taxit nag li xew di xew maanaam soxna déggalatul borom këram doom déggalatul ndey déggalatul baay xanaa day doon nañu doy sëkk enseignant enseignement ci ni am na góor gu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam déggal gi mu déggal yàlla da koo jural soxnaam déggal ko soxnaam soosee déggal gi mu déggal borom këram jural ko doomam déggal ko lii de doy na sëkk enseignant ah enseignement lii de doy na sëkk enseignement ci képp koo xam ni bëgg nga sa kër ci alal kitaabu sunna motax seigne touba di wax ni adlub wala tadjar min matlabi fa afatu talib an yadjara lolu seigne touba ank wax ci tirem bobu nga xam day jàngale éducation jëme ko ci donga yi mu yow talib bi yow donga bi sàkku xam-xam yow mi ne ci dara ji atlub li la tax muy alquran muy xam-xam atlub na ko wut te sàkku ko wala tadjar te bul fi nek di baj baji ak daw bul fi nek di baj baji ak a daw mu ne fa aafatu taalib an yat jara mu ne bon tey gàkk-gàkk bi gën rëy mooy donga boo xam ni day daw leçon donga buy daw bind sëñ Tuubaa nee na moo ci donga yi fa aafatu taalib bi an yat jara donga buy daw bind mu ne moo ci donga yi de donga buy daw bind donga buy daw jàng mm-hmm. say waajur xëy jox la dogu mburu la saak demal jàngi nga jàdd koñ nekk ci ay appartement ba midi nga ñibbi bu ñu àggee ci ay examen nag nga daal di jël sa bopp jox enseignant yi ñu foyee la ngir defal la note yu baax laa xadarallah wala saman laa xadarallah wala saman dama boole ñaar yëpp muy enseignement tubaab bi ak enseignement wu ji ñu ñëpp mën nañ ci dugg incha allah ma ni kon alquran dañu woon lan al jasaawul ihsaan hal jasaawul ihsaan ila al ihsaan te suratu rahman borom dañi jëf ju baax jëf ju baax koy fay wala njaay ni ngàtt geen ngàkkaani geen a koy fay jëf ju baax jëf ju baax koy fay mooy bu fekkee ni son nga ci sa njaboot ci yar leen ci éduquer leen ci jaar leen ci alal kitaabu sunna njaboot ga bu ëllëgee buñ màggee la nga leen lebaloon rek lañ lay fayaat la nga leen lebaloon rek lañ lay fayaat du te yam bu fekkee ni bi nga fiy jógee fekk gul sa yenn njaboot gi sax mel nañ war a mel ci euh, mesure yàllaa la koy sàmmal ba li leen fi bàyyil ci mbaax ci njub ci yar suñ borom dana ko teg ci seeni loxo suñ borom dana ko teg ci seeni loxo loolu jàng nañ ko ci alquran te diggante Seydina Muusa alayhi salaatu wasalaam ak Seydina Xadir Seydina Xadir bi mu àndeeg Moussa ca gaal ga ba yàq gaal ga génn wàcc rey benn xale lu bóor buy toll ci fukki at ak yett ba yegg ci dëkk fekk fa miir boo xam ni miir baa ngay waaja daanu mu jubbanti miir ba alquran bi ñu ko misaal wa amal jidaaru fa kaana li xulaamayni yatimayni fi l madina wa kaana taatuhu kansun lahuma wa kaana aboohuma saalihan wa kaana abuhum asaalan suñu borom daf ni misaal ni ay gone ñi nii yoo xam ni seen baay dafa juboon dafa baaxoon seeni waajur dañoo tegoon seen tànk ci njub teg ko ci alal kitaabu sunna sonn ci di yar seenu njaboot ba yàlla dogal nag bi ñuy génn addina fekkul seen njaboot googule war a mësër ñu daal di xool alal gi am ñu gas benn taatu miir suul ko fa miir booba di waaj a daanu Muusa laxas ni day jàngi xam-xam ci Seydina Xadir ba mu ñëwee Xadir ni ko nañ ànd te loo gis nag bul ma laaj bañ agsee foofa ca dëkk booba ñu fekk miir bay waaja daanu Xadir ni ko eh, demal nga rooti ñu daal di tabaxaat miir bi Muusaa di root Xadir di tabax bu miir ba mel na meloon suñ borom ni boo gisee Moussa ak Xadir ñëw foofu di defar fekk Xadir moom xam na loolu waaye Moussa xamu ko boo gisee ñu ñëw di defaraat miir boobule mooy ndam xale yooyu ma seen waajur ya dencoon moom laay bañ mu sànku moom laa doon gardeel xale yi moo tax ma yebal Seydina Xadir pour mu dem réparé waat miir bi ngir alali xale yooyu bañ sànku ñu ni ko lu tax nga di ko réparé mu ni ndax seen ñaari waajur ya dañoo nekkoon ñu baax di dox ci ndigalal yàlla di bàyyi ay tereem jaarale ci seenu njaboot moo tax man yàlla ma aar alali njaboot googule ba dara du ca sànku ba dara du ca sanku bu fekkee nag yëruloo sa njaboot musiba muñ def ginnaaw buñ ci bàyyi ko bàkkaar ba dalay fekk ci sa bàmmeel loolu mooy li ci gën a garaaw bu fekkonte ni suñ borom daf na wax rek ni ku yërul sa njaboot daal conséquence bi ci àddina rek la yem mooy benn ñu màgg bañ laa toppatoo wala bañ laa faale wala nekk ci ay lixóor nga dëkk ci gàcca nga di leen dégg ci ay toj toj dëkk ci gàcca bu fekkoon ni conséquence bu foofu rek la yem maa muskila fii mais conséquence bi dalay topp ba ci bàmmeel di la topp ba bis penc ba di la topp alaxira loolu problème bi sun borom neen rabbi stu jàll wa jasa aw sayiati sayiatun misluha xam nga sun borom da caa teg ni faman afa wa aslaa fa ajru ala llahi lu waral yow mi may déglu xanaa da nga waaw kii aaya bi fi mu ko dugal mooy dañuy jaawale ñaar mooy lu ñuy tuddee al jinaaw ak lu ñuy al ismu tooñ ak bàkkaar du benn yéen a ngi may tax a dugg ci sew sewi alquran gis nga tooñ ak bàkkaar du benn gis nga tey sa doom ji xam ni yëroo yàlla dogal mu génn ci mbedd mi naan sàngara naan sàngara bu naan sàngara yàlla du ko ko bindal de ndax mëseeragul xam nga bàkkaarub naan sàngara ku ko yàlla di bindal nday jeeg baay bi ci ay kayam la ko suñu borom di bind bàkkaarub naan sàngara boobu te mal éducation moo ko yóbbee nday jeeg baay bi la ko yàlla di bindal ni nga xamee ni bu defoon jinaa mooy tooñ dafa yàq alali jàmbur yow nday ak baay yéenay fay du yéenay fay lim yàq mbaa ngeen dem ti kaso bi suñ borom nag foofu la fa man afa wa asla képp koo xam ne nag léegi jéggale na koo xam ne nag léegi yàqal nañ la gone gu kenn ñërut moo la waaye mësaragut ay param war fay nga ñëw ni baal naa leen ah su boobaa nag def nga baax sab yool yàllaa ko ame sab yool yàllaa ko amee def nga baax waaye sab yàllaa ko amee li nga xamee ne tey boo am nag sa doom ju mësoor a gut ngeen ànd nga ajali ko màkka mu aji mësoor a gut aj màkka wàcce gu ko de bis bu demee ba mësoor bu amee lu mu aja ji aji màkka farat la ci moom lee doon def ak naafila la waaye comme mësoor a gul ci téere yi waa juróom lañ koy bind ci téere yi waa juróom lañ koy bind moo tax nag ma bu yow mal xiyaamee suñ borom mi nga xam moy alimul xëy wa shahada day set ba xam ndax yow sa dom ji rey na nit ci tayef suñ borom day set li tax xale bi ray nit ndax mal éducation motax wala bok bu gisee ni mal éducation buñ ko waroon a jox ci ndawam mom lañ ko joxut ba tax mu am fitu ray nit ta tay ko wallahi bakaru ray nit bobu ci say tire jëf lu ko yàlla di bind te wañi dara ci bakaru gone gi xale bi daa dem ba mesure laa wax de doog a rey nit ci tayefam waaye nag biñ ko toppatoo gis nañ ni li tax mu am sañ-sañu rey nit ak fitu rey nit moo di mal éducation boo ko defaloon ci goneem moo di moo ko ko yóbbe waaye buñ ko yaroon ba mu xam ni ku rey nit dañ laa war a rey kon du rey nit mukk ñu ma koy faral di waxe bi nga xamee ni maître Ablaye Wade ñëw na yadda laa wa nasara ci réew mi te fekk fi yar bi ñuy tuddee ku rey ñu rey la mu wékk yar bi dammate ko sànni ko reye ngi ni ni mel ni tulleeg màllee ci réew mi lañ ko neex waay rey politiciens yaa ngi ni buñ tëddee duñ ñelaw ndax ñoom ku ciy génn sax téeméeri garde corps rek juróom-ñaar fukk di nga ko lijjanti ndax xam nga ne sa bakkan nañ ci xotti kerte ndax xam nga ne mën nañ laa rey te ku la rey kenn du ko rey fuñ koy yóbbu ca kaso ba rek léegi nag boo duggee ci bàmmeel ba am fa ñaari at ñetti at ñu daal di koy gracier mu génn doxe soxlaam waaye bu fekkonte ni yarub rey dañ ko bàyyi woon ca buntu tribunal mu di leen xiixaan kenn du xalaata rey ndax sa sa xel day dute naan est bu ma reyee duñ ma rey moo tax doo ñemee rey mukk waaye comme nag dindi nañ yar bi ñëpp di séen loolu mooy li xew ci école yi mooy ñëw fekk benn enseignant buy jàngale yor yar bu muy coupé gone yi nga nangu yar bi yemoo ca nga def sa rapport ñëw jàpp ko ne rawu ci kaso bi xam nga ni yooye gone dootuñu jàng de yaa ko gën a xam ma nag ñu di ko reetaane ka kekk xam nga ni dootuñu jàng xaleel boobu nag mal éducation boobu état du responsable bi de déedéet yow waajur yaay responsable bi d'accord état moo jël ay loi teg ci sa kaw loos moo def loolu de waaye nag attention de bis bu nekk ñu gis leen ngeen di génn di manifester wu ci ni état dañoo teg lu ñu attanut kon lan moo tax ngeen di seetaan état nangu leen a teg loolu état ne la amatoo droit yar sa njaboot Lol do nga jaron mars tay ba suba lo droit yar sa njabot Lol do nga jaron di mars tay ba suba sun borom nak neena wa jasa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha ngatt gen ngattaani gen rek koy fay sa dom boko ko ba ëllëg nga joge fi mu def aw toj toj sun borom gis ni ñaka yar ge ko waral wallahi ci sa téere jëf lañ koy bind te du yaq dara ci bakaram bobé mom du yaq dara ci lolou alquran bi ñu ne lu ni mel sun borom neena alimat nafsun ma qaddamat wa qarat yowmal xiyaam sun borom neena na bu ne sa premier départ ba sa dernier sour sa premier sour ba nga ne wee ci adina ba sa dernier sour bi nga duggé ci bàmmeel ba li nga fi baye mu nekk sa tarika sa tarika sa tarika say doom da ci bokk dina ko wax ci kanam mu bi firi ay bi dañ ni واخرت جي نجابوت جي كو موم نجابوت جي واخرت يالا داني يوم الخيامه جام بوني دانا كو انديل اي جيفم من الاول الى الاخر لم جيك جيف بلا مودي جيف لم مودي جيف نك بروم خام خام دنج كو فيريني موي نجابوتام جيم في باي تيرو لين تي الاسلام نين بالما تيرو لين تي الاسلام با بين في جوغي ني داف اي بيتيس bu keroge nak ba yowmal khiyam sun borom jakarlok jambi ni ko ya ayyuhal insaan maa xaraka bi rabbikal karim a ah, yow jaam bi lu la waroon ci sa borom ba lim santaane woon ci sa njaboot gi defoo ko ay loi loolay saw lay ay loi ma gàllankooroon ay loi rek moo ma war yaa ayyuhal insaan maa xaraka bi rabbikal karim ana lan moo la war ci sa borom lim la digaloon defoo ko lim la digaloon defoo ko wallahi sun borom wàccoo naag jaam ñi de gis yàlla dafa xam ni doomu aadama ni mu mënee lay ni lay moo tax sax suñ borom nee bu ngeen gisee ma yónni ay yonent bañ yey ma yow mal xiyaam rek bañ ngeen yey ma yow mal xiyaam an sarta mu ni euh, suñ borom daa ci alxuraan ni law la arsaltana ilayna léegi def ni law la arsalta ilayna rasulan fana tabi'a ayatika aw xaala nu mu ko waxee ci suuratu xasas eh, suñ borom day wax ni bu yow mal xiyaamee ba jaam ñi teew su ma leen nee xëy waay lu tax li ma leen digaloon defu leen ci dara li leen tere bàyyiwu leen ci dara ñu ni ko ah lu teewoon nga yónni ay yonent ci ñun boo yónni woon ay yonent ñun danañ nangoo topp sa aay yi nangoo topp sa yonent yi alayhimu salaam lawlaa arsalta ilayna rasulan fa nattabiha ayatika wa nakuna minal defe naa suuratu xasas la nekk ñu gis ni kon xalel bi bu fekkente ni yaroo ko ni ko war a yare sa tarika la boo fi bàyyi fala budda mënta ñàkk li muy jëf danga ci jot sa wàll da nga ci jot sa wàll de bi bu nu xoolee alxuraan daf ni woon yow mi may déglu da nga posé question ni waaw lu tax alxuraan ni wala tasiru waasiratun wisra uxra waaye déggal la ci suñu borom teg wa maa kaana wa maa kunaa muhaasibin attaa nab'asa rasuulan wa maa kunaa muhaasibin attaa nab'asa rasuulan suñu borom dani wala taziru waasiratun wizra du ma jël bàkkaar ma sàmba di ko jox ma demba waaye parent ak i doomam duñ ma sàmba ak ma demba ñoom ñëpp ma demba lañ parent ak i doomam duñu ma sàmba ma demba ñoom ñëpp ay ma demba lañ lu tax bi yàlla yónni moonu xamal ni doom doom tariika la ci ay waajuram alwaladu min asaaril walidi alwaladu min asaaril walidi wallahi doom doom ci tariikay waajur la bokk mooy alal ji fi doom yi fi waajur yi bàyyi doom yooyu war a doon alal ji doom yooyu war a doon alal ji gis doom yooyu alal jooju seen bàyyi bàyyi mu nekk ay tarikaam ñu war koo donn doom yi tamit nag tarikab seen bàyyi la seen bàyyi day doon donn ci seeni jëf doom yooyu seen bàyyi day donn ci seeni jëf moo xam jëf ju baax la moo xam jëf ju la bàyyi bi da ciy donn mi ngi aju rek effort ba bàyyi bàyyi ba def ba war a doon jëf ju baax wala effort ba bàyyi ba def ñàkk effort ba bàyyi ba def ba war a doon jëf ju bon loolu de yonent bi yàlla yónni moo ñu ko wax sallallahu alayhi wa إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاثة صدقة إلى من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد سالم يدعى له أو ولد سالم يدعى له موي دوم جوجو يونت بي wax doom di nga fi bàyyi sallallahu alayhi wa sallam moo ni nit daal bu génnee àddina yàlla day kuppi ay jëfam yàlla day kuppi jëfam yëpp mu ne ba mu des ñett rek ilaa min salaasin ba ci dëkk mooy sadaqatin jaariya sarax bo sarax won te yàlla tax mo xam da nga dem ci daara alquran ya tabax fa am néeg li fi do nga yang ci dëkk di jàng alquran yàlla di la bindal tiyaba mo xam da ngay jël saw ñaq di ci duggal ci dara ja mo xam da nga dem ci ab dëkk buñ mën bu mënta am ndox mu ñu naan nga gassale nu teen wala nga xëccal leen robina ila akhir ila akhir sadaqatu jariya aw ilmin yantafu bi wala bok xam-xam bo xamni nit ñang koy jariño te yàlla tax bi ko ñaareel mooy doom ji bi ko ñetteel mooy doom ji waladin saalin yabda ala bàyyi fi doom ju baax doom ju baax boo ko fi bàyyee loo loo def loo lu mu def ci kaw suuf moom doom jooju lu def ci kaw suuf ci xeeti jaamu yàlla ci xeeti jëf yu baax yëpp bu ko jëfee ba noppi tuyaaba ja suñ borom tabaraka wa taala da koy multiplier ba noppi nag yónnee la ko yow waajur yi nga xam ni yaa nga barsàqul muhammadiya foofa la la sa bonus di fekk waaw sa say doom foofa la lay fekk noonu mu amee nag ci bëri su tuyaaba yi say doom di la fekk fa nga tëdd naka noonu seeni ñaawtiif noonu la la fay fekkee alquran wax na ko suñ borom nee na inna nahnu nuhyi al mawta wa naktub ma qaddamu wa athaarahum wa kullu shay'in ahsaynaahu fi imamin mubin da nga suurtu yasin suñ borom nee na yowmal xiyaam maa leen di dekkal yéen ñëpp kenn ku ne la nga jëkk a def mi ngi ma bind mi ngi ma bind ci say dossier mi ci sa carnet jëf wa asaruhum ak seen njaboot du ngeen fa bàyyi woon ñoom it lépp luñ jëfoon ci lu baax seen tiyaaba bu ngeen ubbee seen téere jëf fekk ko fi waaye luñ jëfoon ci lu bon it boo ubbee sa téere jëf fekk ko ci laa xaddara allahu wala saman laa xaddara allahu wala saman yonent bi yàlla yónni lii la wax alquran it lii la wax bu mel ni midi kon nag nañ def effort ci yar njaboot gi nañ def effort ci yar njaboot gi suñu kemtu lay katan mo xam dañuy nëbbu di yar ginaaw am na benn puissance bu nu ëpp doole bu nu tim mo xam dañuy manifesté wu wallahi yi diine yi lii ma doon wax lii ñoo ma ko gën a jàng ma xam ñoom it war nañu wax ak état xamal leen ni dañoo am masuliyé ci yar suñu njaboot kon nañ ñu bàyyi ñu yar suñu njaboot gi ñu yar suñu njaboot gi ndax nit hadis boobu sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg dëgg dëgg ci la sari ak tibbe wala fi ko lépp ni gone xamul yàlla waaye xam na yar gone xamul yàlla waaye xam na yar léegi nag yar muy li ñu tudde éduqué doomu aadama yi dañoo wuute du da nga gis koo xam ni dana jël service ba xëy dem retraite kenn du ko sanctionné lu tax parce que dafa respecté ab liggéeyam noonu la amee ci xale yi ñoo xam ni danga leen yar bañ xëy yaru ba ni nër ab yar du leen masa laal boo ne def leen ñu def boo ne baleen ñu bax ñi bàyyi ma yi wutee am na bàyyi ma boo xam ne bu waaxu woon jëm ci aw ñam maanaam jëm ci ab tool boo ne xëyi waay mu ni wàññat am na bàyyi boo xam ni du ko wàññi balaa balaa balaa wàññi daa dem bam jël gémmiñam dëpp ko ca naafub gerte bi koy tere wala nangam dang koy tere faaw dana waaxu bu dëpp ko ca donte dang koy duur yat mu door ñu bëxër ñi daw noonu la doom aadama yi mel waxtu wi duñu ko may waaye alquran misaal nañu ko وما من دابة في الأرض ولا طاهر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء سن برام نينا amul jenn daaba joy gis muy dukkat ci kaw addina bi wala ci suuf si lu dul ni man yàlla jël naa ci exemple comme doomu aadama comme doomu aadama da gis doomu aadama boo xam ne nii melaw yoo la amee melaw yoo lakkal nit ñi rek xool leen ko ci nit ñi am na ñoo xam ne nii lakkal doomu aadama yi rek waaye amaluñ njariñ addina amaluñ yàlla njariñ amaluñ yàlla njariñ amaluñ addina bi njariñ lakkal nit rek melaw yoo lañ amee am doomu aadama yoo xam ne nii melaw gaynde lañ amee bu ñu tooñ waaye ku leen tooñ fanaan yow mal xiyaam am doomu aadama yoo xam ne nii melaw li ñuy tuddee max moom lañ amee doo leen gis da ngay rek fekk dugg nañ ci sa biir max a max a max da laal bant bi mu ni këlëb yow doo gis fu mu jaar ba max ko am na ñoo xam ne noonu lañ mel dañuy ñëw dugg ci sa biir nga yaakaar ni ñi ngi lay defaral nga yaakaar ni dañ laa jàppe ni kuñ bokkal ndey ak nga yaakaar ni say xarit ci benn bakkan lañ fekk booba ña nga lay mat te yëgoo ña lay alak te yëgoo am doomu aadama doomu yoo xam ni melaw max googu lañ amee am doom adam yo xam melaw xar lo leen waxul xamuñu ko waye lo leen wax nak ñu def ko lo leen wax rek ñu def waye nak loo leen waxul mom xamuñu ko xamuñu lu baax xamuñu lu bon am ñoo xam ni melaw bëy lañ amé sop yàq dugg ci lu seen yoon nekkul wax lu seen yoon nekkul non lañ mel am ñoo xam ni melaw fasu naaru góor lañ am lañ amé moy yenn coono yi waxu ci dara waaye nay lekk nay naan nay tëdd fu set waaye bu so bu sonn jotee daanaka noonu la nit ñi mel mën naa ko lim yu dul jeex yu dul jeex bépp bàyyi moo goo boo gis am ñoo xam ne ni melaw picc lañ am melaw picc garab gu ñu tong ña ngay xool ga ca des garab gu ñu tong rek ña nga ca ga ca des am ñoo xam ne melaw gëléem lañ am boo leen tooñee duñ fàtte mukk duñ bale mukk lu yàgg yàgg daañu mas a fayu ak niñ mën a fayoo nag ak niñ mën a fayoo nag am ñu yore melaw jaan miñ la wax dara ñaan cal rek boo fiñ boo leen jegee ñu la cëppit matt nga daal di dee ñu xam noonu lañ mel ba doom aadama yi jeex ma farat naa fil kitaab min shay ba doom aadama yi jeex loolu nag moo waral yàlla sant nu nu yar ndem bàyyi ma bi nga xam ne dafa wex ba kenn du ko laal muy xar muy nag wi nga gis ko xam ne nii mën na ko yar di ko yar di ko yar di ko yar ba mu gën a yaru wa yar ñi nga xam ne dana ko mën a war di doxi soxlaam saa bu ko jubee mu damam bu ko wooyee mu wuyu si ko ndem bàyyi ma la ñuy yar ba mu mel noonu waxumaa nit waxumaa nit kon nag éducation mënta ñàkk ba ca jëkk mooy xam naa ni waxtaan yi du jeex waaye maa ngi ciy joxe lu mel ni rek sa njaboot nga tànnal leen ñit ñi àndal ndax Cheikh Ahmadou Bamba nee na isa kunta fi xawmin fa saayib xiyaaruhum sëñ Tuubaa nee na bu yàlla dogalee nga nekk ci aw nit seetal ñi ca gën a baax ngay ànd ak ñoom fekkee da ngaa jóge Sénégal dem bitim réew fekk fa ñoo xam ne dañoo dogub tënk nga xam ne nii baar bu nekk ña nga fa cafétéria bu nekk ña nga fa yow nga joge senegal dem fa bo demé sanal senegal ya gëna yiw gëna baax gëna jup japp seenu liggéey tam maandu ngay and ak ñom di ak ñom ngay and ak ñom di ak ñom waye bo ñëwé nak philippe teunk ni légui liibar naa gisatuma nday mu naan deet gisatuma bay mu naan deet aw jambour la nekkal te fuñ ma nga daal di ay ca da nga dugg ci pax ñu fi da nga dugg ci pax ñu fi ñibisi waaw waaw ndax da nga ànd ak ñoo wërta àndal ñu al ko alagaale la sayidna alim karamala wacc wax na ko sayidna alim nee na karamala wacca nee na wa kam min jailin nee na wa kam min jailin fekk da am na bay du ko jiiti dani wala tusaayibil arda wala tusaayibil arda fa tarda ma ardi fa kam min jailin arda aliman hina hina waqaahu mu ni maa ngi lay dénk moom sayidna aliw maa ngi lay dénk rik waay bul ànd ak waaju alku ndax boo àndeeg mom dana alku alagale bu ànd ak waa amul kilifa boo àndeeg mom dana alku alagale la muni bari waana ko xamni ni da lewet yar nañ ko bam gëna yar way yaruñi ñu jubal ko bam gëna jub way jubuñi muni waya ànd ak ñu réer ñooñu wëlbati ko ba far alak ko gis nañ ko xalel yo xamni ni tay ji xalel bi nga xamni do nga daara la bu ñewé ci koñ bi fekk lenn ci xale koñ bi ñuy jaay dorog wala ñuy tuk dorog mu ñëw tok ci seen biir xalel yi nga xamni ne ay tuxkati dorog lañ xam ne nag ñi ñuy ay coy mooy ñi nga xam ne ñooy jàpp jaaykat yi doog yi buñ leen séenee même buñ siwiloo danañ xam ne ñee ñooy police wala ñooy gendarmerie ñiy jàpp dorog su ko defee ñoom dañuy def wëqat daw moom mi nga xam ne ca daara ja la nekkoon xamul lu xew moom day toog rek ñu ñëw jàpp ko dugal ci kaso bi tuxuma woon du la ci boole de tuxuma woon du la ci génne mukk Seydina Omar radiyallahu anhu mas nay dox ci aw yoon bu jub ay xale xale yëpp ñu pëcc daw am benn xale bu taxaw rek bi xale bi ñëwee bi Omar ñëwee ni ko waaye yow lu tax sa morom ñëpp daw dawuloo mu ne ko man damaa gis ni defuma lu jar daw comme maa ngi ci njub te yoon wi yaatu na fii yëpp mën nga fay jaar jàll kon lu jar daw gis nga boo nekkee ci njub boo siiree nit ñi di daw te yow defoo dara sam xel du na ci daw ñi def ay bêtises rek ñoom ñooy samp seenu xel di daw su ko defee nag yow buñ ñëwee dañ lay jàpp yóbbu bokkuma ci won du la ci génne kon li gën mooy bul ànd ñoom bul ànd ñoom sëñ Tuubaa nee na wala tusaahib in aradta suhba saa safa in aw xasadin aw raqaba mu ni moom sëñ Tuubaa booy wut ab àndandoo nee na ñett ñi na nga leen fi ba yéen ñi may dégg ñëpp sëñ Tuubaa nee na ku ci wutub àndandoo ñett ñi moom bàyyi leen fi ka ci jëkk mooy safiit mooy nit koo xam ni dafa defe ak matt àll waxuñu nag daa dof du caaginu ku dof rek déedéet mooy mi ngee xelam waaye nag du jëfandikoo xel mi mukk du jëfandikoo xel mi mukk safi la xamut lu baax xamut lu bon lu ko nit dugg rek mën na ko caa maanaam lu ko nit dugal rek mën na caa dugg te du diisoo du laaj saa safay aw asadin kooku moo ci yées ku añaan nee moom sëñ Tuubaa aje añaan bul ànd moom mukk ko xamni lu nit ñi am yene wulen ko lu nit ñi am nak mo xam xam-xam la mo xam alal la mo xam mom daal lu nit ñi am yene wulen ko rek sëñ tubaa neena bul ànd ak ki ko ñettel ci moy aw sa raqaba ko xamni mom ambition des misiri la mom mom alal amu ci ngor alal amu ci ngor sëñ tubaa ni bul ànd ak kooku nit ko xamni alal amu ci ngor neena bul ànd ak mom xam nga député bu ñu fay nangami million par weer amuloo lenn looy def lu dul ñu di la tuumaal ci ay faux billets ana ngor ana ngor sëñ Tuubaa ni bul ànd ak nit ku amul ngor de mooy kan mooy koo xam ne nii ambition des miséré maanaam ak bëggam ci addina amul fu mu yem lu mu am ni la ca des lu am rek ni la ca def rek sëñ Tuubaa ni ñetti àndandoo yi na leen fi ba nga ne ko ah ku la digal dara day ku la tere dara war na laa digal dara kon kan laa war a àndal mu ni wala tu jaalis xayra man bihi tusaat diinan wa aqalan abadan tanal muraad mu ni man sëñ Tuubaa maa ngi lay dénk waay bul ànd ak koo xam ni bu ngeen bokkee toog yéen ñaar ba ngeen teqali ko sa diine du fa yokke doo fa jële xel mu rafet sëñ Tuubaa ni kooku bul toogaaleeg moom képp koo xam ne boo toogeeg moom ba jóg sa diine du fa yokke du la ne yàlla nee du la ne yonent nee na du la yokk mukk ci sam xel ci sa addina li nga war a moytoog li nga war a topp li nga war a jomb yooyu yëpp du la ca dara sëñ Tuubaa nee na ba fa du àndandoo mu ni waaye nag bu la wóoree ni waa ji boo ko joxee sam nopp sa diine yokk boo ko joxee sam nopp sam xel yokk sëñ Tuubaa nee na jëlal sam nopp dëpp ci gémmiñam Seydina Omar waxoon na ko Seydina Omar nee na jël leen seen nopp yi ngeen dékk ngeen dëpp ko ci gémmiñu koy ragal yàlla ñi mu ne bu ngeen ko defee danañ leen feeñal ay xeeti kiimaan ak xikma yoo xam ne nii wallahi fees na asamaan ak suuf mal asaf nag xale yi biñ ko def xale yi biñ ko def xale yi ñi leen di éduquer mooy plateau télévision yi xale yi ñen ñoo leen di éduquer mooy rajo yi xale yi ñen ñoo leen di éduquer mooy réseaux sociaux yi léegi nag kon catastrophe totale al karisatul am li arab yi tuddee al karisatul am kon nag xam naa suñ muudu waxtaan yi jeexul waaye ñaar dal mooy sonn naa te am naa bay boo ngeen ñaanal mu baax rek baat bi moom ngeen ñaanal ma rek inshallah allah ah, bu ko defee ñu ndokki leen yéen ñëpp di leen ñaanal di gërëm suñu wëlëre wala di sëñ eh, Mouhamadou Diallo moom tamit ñu koy ndokkeel ci ànd gi ànd ak ñun ci daara Ihya Ulumu Diin di gërëm bu baaxit ku ci mel nii ah, sëriñ xolar nekk foofu ci Amérique moom nii nañ leen ak suñu xarit ba sëriñ Koso Fall mm, moom tamit ndeysaan Ah, barki démb yàlla dogal na wala démb sax la démb rek démb ah, demoon naa ca daaraam jooju hmm, ñu koy ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko sàmmal ko njabootam wax naa ko ko barki démb pili de lu bëgg man ñetti at taxawaayam ci daara ji sensé wu ci dara soppi wu ci dara kem tu lay kàttanam ko defee loolu yàlla na ko yàlla defal ci téere jëfam incha allah ko defee ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di wax bokk yi nga xam ne daanañu woote ci sama skype bi ak di ci bàyyi message skype bi dafa tëjute ba tey mën a buñ ko tijji daal xamu lu ko waral skype bi parce que kon euh, bi may laaj bopp teg bi nga xam ne moo ci nekkoon ila axirihi euh, xam naa kon ñi nga xam ne ñu laaj ay question yu mel noonu da ngeen di jaar ci téléphone bi rek bu leen neexee 77 615 36 07 77 615 36 07 ngeen jaare foofu rek incha benn ngeen jot ma mbaa ngeen jot ki ci man rek moom daanaka su ma ko yurut sama loxo ci ko yor duñ soree su ma rek mën naa def incha rabbi defee ndokkal nañ leen bu baax a baax euh, di waxaat ni ñi nga xam ni seen alal euh, yéene nañ ko def bu baax waxoon naa ko ci benn waxtaan euh, ay dongo yoo xam ne nii Euh, dama amagul fu dëkk ma di leen war a tabaxal fu ñu dëkk jëndoon naa six tonnes sama xaalis ba jot ko mool ba noppi ah léegi feer moo ci des ak xëy na ak yu noonu ko defee bépp jullit boo xam ne rek lislaam saf na la ndox mu neex te nga mën ko ca def ma muskila fii incha allah loolu sax daanaka bokk yi ñooma ci far de dem koy faral di imposer ni ma lu mel ni lu jëm ci daara ji dëgg-dëgg bu ñu sañoon nag nga di ci wax waaye man dawuma ci wax damay def lu ma am def ci rek no way joxe ma defal la ci waye nak diko wote woote saxit nag wax deug gën a lu yenn ay kilifa rek leg leg ñoma ci xawa yedd dal waye gën a bu ko defee ndokkeel nañ di ñaan ñepp di ñaan suñu borom mu may ni tawfiqul hadi inshallah té euh, te ñu njabot gu jup ah yonanti alihi wa salam da nañ ko ñaan julit bu nek war nga ko ñaan rabbi ab li min la dun ka suryatan tayyiba ku ne war na koy ñaan ak lu mel ni rabbana hab lana min aswaajina wa surriyaatina xurata ahyun yow sun borom nag ñu defal ci sunuy soxna sedd gi xol waaye defal ñu ci sunu njaboot sedd gi xol ab julit daa war fu mu di ñaan yàlla jubal ko te jubal ak njabootam jubal ko te jubal ak njabootam rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada julit bu ne war na koy sàkku ci boromam su ko defee sëñ muudu foofu la ñuy jeexale waxtaan yi di wax suñ borom ni ko allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azaba nar asbil suturi aslih umuri kasil xuyri bila kida ya sal jalali ya mutahali ya xayri wal ajib du'a wa sallallahu ala muhammad البقاء